jàppal te yow nga far ba ñëpp xam ne da ngaa far. Mhm. c'est que Antoine dafa nëbbatootul de ñun sénégalais ñoo fi nekk sax di laam-laam mais Antoine daa nëbbatootul Antoine il avance à visage découvert léegi nag nit ñi ñooy xam rek ni ñu tojee seen boppu jën. ni ñu koy defee parce que moom il avance à visage découvert ah nëbbatootul. ni ñu koy ne dafa far lii lay def te patron moom moo fi toogoon biñ ko nee utal un ministre neutre mu ne du ko def. du jaajëf aw Diop jaajëf bu sama mais ñu ngi ci euh, <laughs> presque 4000 personnes ah ci <laughs> YouTube. ñu leen di ñu leen di ñu leen di ziar bu baax a baax. bëri na ci di ziar Malick Sall Waalo mu ñuy dégloo ca diggante Italie ak Allemagne di ziar Jigo Mbay mu ñuy dégloo moom ca Italie. d' accord mhm. Djigo Mbaye ak Malick Sall Malick Sall moom habitué la. habitué la waaw dañ koy dañ ñu leen di nuyu bu baax a baax. sax mi ngi nii ma tiim mais mënu ma koo déglu parce que. ah audio la téléphone la nekk waaw. waaw Sall benn yoon da koy bind. waaw su ko doon <laughs> koy bind comme ça ñu koy ñu koy jàllale. Gonde Vision aussi bëri na ci page YouTube bi ah euh, mais am na yu bëri yoo xamante ne mënut la jàll ci antenne bi <laughs> ay deuxième vague laay dégg troisième vague pour man deuxième vague sax corona la. <laughs> ñaar yëpp benn baaxu. benn baaxu la wallaahi <laughs> alors euh, léegi lu ñuy xaar bon dañuy dañuy dañuy dañuy wéy dem ci beneen sujet mais laata loolu. Uh-huh. Euh, parce que aussi diwlin bi nu mu yokkee mi ngi mel ne jaaxalul Sénégalais ah. Euh, presque 1000 francs yokk na wala plus de 1500 yokk na. ci eh, ci dama juum na ma ne plus de yokk na. en Europe tey bidon 20 litres bi ça eh, Europe Sénégal la wax. mais c' pour te dire. kon uh-huh. tey Sénégal ñu ngi dee en Europe. Uh-huh. te pour ñu gis ko dañ koy wër. mais bien sûr bu 20 litres bi 50 euros c' à dire 36 000 francs. 20 litres c'est-à-dire ñun Sénégal fii on est en train de man li ma li ma inquiété mooy li ma defe naa Katim Touré la bu ma woo ci suba nee mi ngi dëkk fii ci yoof mook Jibril Ndiir moomu ñoo bokk fi ñu dëkk nee na ma damay jaay soow mais seen problème ñoom mooy pap mhm. suñu jëndee meew bi prix sàngam tey mooy soixante-dix mille euh, la dégg sax ah. mu ne li nga wax la yow ak a doy ah. francs lu ko suukar si la même chose suñ nee prix bi lii la tey soo liggéey soo ñëwee ñu teg ci leen lu ko ëpp finalement euh, ñiy jaay suñu amul euh, nu ñu koy wax sax bénéfice ñiy jënd ci la ñuy wut bénéfice il faut mhm. que détail détaillant yi également mais bien sûr mhm. te li ci doy waar mooy réew mi a <coughs> chaque fois nga dégg problème yu mel noonu Pape mhm. euh, soo déggee association de défense des consommateurs ñi dal souvent seen kaw mooy les commerçants mmh, les grossistes mmh, les mmh. surtout les détaillants a yàpp alors que seen responsabilité man <laughs> yàlla natt na ma mas naa jaay boutique mais kuy jaay boutique quand ay ay juróomi dërëm ngay ngay ngay wut bénéfice. Mhm. ay ay dërëm fii cent franc. fële fukki dërëm fële et cetera kooku am na yoo xam ne il suffit mu yokk ci saako suukar wala mu yokk ci saako meew bi par force dafay yokk ni mu koy jaayee wala boog mu gën a tuutil takk yooyu ñuy takk. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga dañ doon wax ne Abdou Diouf mas na fee toog benn conseil des ministres. nga xamul ne ñu ne ko ñu ne ko Sénégal lay dégg naa kenn ci responsable PS yi wan ko benn mbuusu café ak benn mbuusu meew mooy mbuusu café yu juróom yi yàgg mm-hmm. yooyu. boobu yi amagul ne ko Sénégal lii la ndékkee mu ne mosu koo xam ne Sénégal toll nañ foofu mais li ma Malick Sall miy tudd di wax nga euh, miy tudd sànq wax ci suba. waaw moo di ne Pape. réew mii ñu nekk. naan sàcc nañ fi ab euh, député maire. lu jege un milliard. réew bés bu ne nga dégg ci pénc bi ñu naan milliard ba nangam joxe na milliard wàññi na milliard yónnee na milliard mais réew moomu est-ce que xam nga ne am na ñoo xam ne suñu yeewoo seen kër fajar teg seen tànk ci lal bi ci suufu lal bi. 1000 mhm. francs fanaanul ci kër gi. fii ci Sénégal. c'est 1000 francs fanaanul ci kër gi. alors ñi nga xam ne. dañuy daw dépense chaque jour. dañ bien bien sûr. fii ñi fi am euh, euh, junni. junni dépense par weer. c'est des privilégiés. dëgg la laajal aw Diop Ndiaye mii junni loo ci mën a def. dëgg la mmh. boo ci toggee ceebu jën bu dëgër mu dem. dëgg la de. ah dëgg la de. léegi nag ndékki ñëw euh, nuñ koy waxee. léegi kër yi gobar jaasee fi xew. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi ci war a topp. moo tax Sénégal gis nga Pape. c'est bien li ñuy waxtaanee nii ci conseil constitutionnel. c'est bien li ñuy waxtaanee ci politique parce que looloog réew mi ñoo est ce que finalement politique bi mu jul tax ba ñu fàtte sax problème bi ñu nekk di dund ci social bi te mu waroon euh, tax ba nit ñi génn ci mbedd bi def manifestation yu rëy. mais loolu man dama gëm ne responsabilité wu Sénégalais yi da cee am. Mhm. lu tax mooy les politiques. Mhm. ñoom fu seeni problème tegoo. waaw waaw génn ba xam ne génn nañ am nañu fulla bi de. Mhm. mais Sénégal fii syndicalistes yi ñoo mën a génn yëngu. mais Sénégal li ñuy tuddee consommateur mais à quoi voilà à quoi nous servent les consommateurs li ñuy tuddee ah, mm-hmm. man waxuma yii fi nekk de ASCOSEN ah non ne me <laughs> waxuma yii fi nekk ma benn mais dama ne gis nga soo demee ci yéen réew yi nga xam ne dañoo sérieux mm-hmm. association de consommateurs France am nañ benn journal bu ñu tuddee soixante millions de consommateurs soixante millions qui fait référence à euh, à la population quoi à mm-hmm. l'époque nga xaw ba xam noonu tudd ba léegi cest à que ces associations de consommateurs la dañuy am doole boo xam ne fu état bi wala privé yi bëggee poser lu nar dal ci kaw consommateur ñu génn ba ñu yëg ko. Mhm. mais tey man consommateur la su fekkee ne ki ñu wax ne moom moo jiite les consommateurs du Sénégal. Mhm. à chaque fois ma gis ko ma ngay défendre le pouvoir du président bi fi ne. est-ce que du ministre conseil ci Macky Sall ma ñëw rek ma ñëw rek. su mhm. président bi tuddee Awa Diop Ndiaye mu défendre ko. Mhm. su président bi tuddee Pape Mokhtar mu défendre ko. Mhm. soo lëggee président bi tudd Moustapha Diop wala Youssoufa Diatta mu défendre ko. mais kooku su ma woowee ne ma yow en tant que consommateur ñëwal di ko di ko di cotiser sama association su ma wootee marché nga ñëw mais du ma ko nangu. parce que crédibilité bi may xoo xool ci kuy défendre ay consommateurs gisaguma ko. Eh, l'exemple que je donne euh, awa waa jooju xale boobu nu mu tudd Famara. Ibrahima a Famara Ibrahima Cissé. Mhm. mais Famara Ibrahima Cissé xam nañ ne doole ji mu war am amu ko moyens yi mu war a am mooy amu ko mais li mu tànn moom def ko combat muy combat wu yi ak sociétaire banque yi. li nga xam ne moom la leen banque yi di teg ci lu metti di la ko teg yow di ma ko teg man di ko teg awa mhm. moom ci la def combat di ko xëy tous les jours mhm. pourtant de heure bu wootee kenn du pour ñun ñu ñëw taxaw kenn du ñëw wuyu. Mm, dëgg la et pourtant li muy woote lépp. billaahi yàlla xam na ne buñ ci taxawoon dinañu soulager ci lu baree baree. bari parce que ñëpp xam nañ ne les taux. li nga xam ne moom la banque yi di pratiquer sur euh, nu ñu koy waxee sax les prêts yu demee noonu ak li ñuy dagg ci suñu salaire tudde ko ay asio ay lu leen neex lu ne lañ tuddee moom finalement da ngay dem ba da nga naan dagg leen ba doyal rek des ngeen jox ma mais yooyu su fekkoon ne sénégalais yi def nañ ko seen i combat ni leen meeting politique intéressé su Macky Sall génnee ak i nitam ñu def mbooloo mu dul jeex dem topp ko su Ousmane Sonko génnee ak i nitam ñu def mbooloo mu jeex dem topp ko su leen intéressé woon seen biir yi li ciy dem li ñuy consommer ñun li ñuy dund te mu ñu intéressé woon noonu ñun ñëpp ñu mobiliser ndoo état bi dina ci reculer par force dina ci jël ay matuwaay mais nan ngay ñëwee ci réew mel ne Sénégal ñaar wala ñetti at xëy na ñeent ci ginnaaw ëpp na ko le président de la République taxaw ne dina wàññi location ci réew mi. Mm-hmm. wàññi ko wàññi boo xam ne ñun ñi nga xam ne sax jànguñu xamuñ dara ci location xamoon nañ ne lii du dem. dëgg la lii du dem. fan la jur tey jii la location gën cher à Dakar. Mhm. tey Dakar salarié boo fa gis bu fayoo cinquante pour cent de son salaire wala trente pour cent de son salaire pour ne pas raconter des histoires dana dem ci location. mais yooyu ku ko régler ci réew mi régler problème mu réew mi. réew mi ku fi régler problème mu santé problème mu lekk. problème location ak sécurité réglé nga problème mu sénégalais yi. Mhm. mais malheureusement yooyu euh, du ñu mobiliser et comme du ñu mobiliser nag ñun on pense que le président de la république bu tabaxee benn stade bu yànj ñun ñëpp dañoo war a ànd dem fa. Mm. di fecc ba fàtte suñu ay problème mais la waaja waxoon rek. benn waaye bu tudd Moustapha Diop moo ko waxoon ci petit déj. Mhm. Sénégal lu mu gañe gañe coupe d'Afrique. Mhm. ñu ànd ci yuuxu ba kontaan bu ñu ñibbee suñ kër yi. wallaay xam ne coupe d'Afrique joxewul reer. de la même manière stade bee ñu tuddee Ablaye Wade Pape. Mhm. du la jox reer de. duñ jox reer duñ jox ndékk. déedéet. waa jooju tudd Moustapha Diop kan nañ koy invité. heure la neexee. <laughs> aw Diop Ndiaye. yow da dem marché. <laughs> Paa Matar dépense dépense euh, lu mu tudd depanse yi ba tey même chose nañuy joxe te ah, affaire yëpp a yokk ah. balay awa di di ñëw xam nga ah, ban ban chance lay am ñun góoru Ndakaar yi waaw xam ne ay yambar lañ xam <laughs> xam lan mooy suñu chance ñun weer day dee ñu jël affaire bi jox ko soxna si ba pare génn ci solox ko rek dem si yoon waaw xamatuñ lu fa xew jéen mi ngi dee xam naa loolu lay def xamatuñ lu ci xew alors que jigéen ñaa ngi bëgg a dee ñoom mais je te jure <laughs> dépense yi yokkul prix yi yokk na waaye yow ñëpp noonu lay def mais euh, Pa Matar uh-huh. day fekk itam mu am répercussion euh, ci li nga xamante ne moo di salaire yi mm-hmm. la masse bu fekkee ne amul benn hausse kii borom kër gi ah, tamit ah déet policiers yi yokkal nañ leen de ñoom ak gendarme yeeg yooyu yokkal nañ leen de cent mille ak quatre mille francs xaalis la de ma la waa parc nationaux yi ñu ngi kaas ah. nee nañu dañu mënul wax man j'ai des tonnes de ah, messages dans euh, mon téléphone yi Euh, pénitencier waaw xam nga deux poids deux mesures boobu tamit. ci euh, yokkal policier yooyu sax damay dayal benn policier ci rond bi mun ma ñun mun ñu wax mais yàlla xam na ne bu ñu consulter woon. Hmm. ñu wax ñu changer ñu suñu régime. moo gën fukki yoon ñu yokkal ñu salaire euh, parce que ñoom nee nañ bu ñu retraité wala ñi nga xamante ñi ngi waaye dem retraite bu ñu demee retraite seen pension dafa nekk pension yu misérable yoo xamante ni mais loolu lañu ma demee ba 7500 francs de pension. Mhm. Mhm. ndeysaan. liggéey ba liggéey ba liggéey ba ba arrêté ba euh, mënatoo. waaw fayeku 7500 francs de pension ñu la ko doon dagg te di fàttali dañ la ko doon dagg ba ngay liggéey. non man ce jour là j'étais choqué mënuma ko woon gëm. ci réew mi xam nga ñu ngi wax wàllu lekk beex naan. Mhm. billaahi kër yu bari ñu ngi gobar jaasi. soit euh, loolu moo indi dislocation sax cellule familiale tey jii. waaw léegi kenn taltul kenn. waa Matar parce que autant ndekki da ngeen doon toogandoo ñu daggandoo ay dogu mburu ñëpp jëlandoo ñu toogandoo ndekki. Mhm. fi mu nekk ku xëy. yaa ngi jéem a ut cent franc ñii ñi ngi ci borom cere bi ñii ñi ngi ci borom fonde bi ñii ñi ngi ci borom euh, ndambe bi. Mhm. heure añ la ñuy toogandoo bokk añ reer. ku ci nekk dem débrouiller wu ji mhm. mu indi dislocation famille euh, euh, cellule familiale bi mhm. Mhm. indi ñàkk yar ndax ci autour du bol lañ daan yar xale yi di waxtaan ak ñoom xam nga répercussion bi day bëri lu muy def ci société bi ci euh, lii nga xamante ne dañ koy jàpp di ko soofantal te mu doon loo xamante ne benn chaine la boo xamante ne bu ci dagg rek day am répercussion ci moroomam tey jii Euh, borom kër yi amatuñu temps toog ci seen biir kër yi ñi ngi daw di uti su ñu ñëwee soxna si 1000 francs lañ lay jox jigéen daanul dem liggéeyi mais léegi jigéen ñi ñooy njëkk xëy guddee wàcc te suñu ñëwee ñooy jéem a xool naka la ñuy gérer kër gi ñoom kay seen kër dama ne ñu ngi ci tali bi jën mënatoo koo gis mhm. jën mënatoo koo gis mënatoo gis euh, ceeb bu baax mënatoo gis légumes yu baax mënatoo gis dara te buloo ci gis njëg lee gën di jéggi dayoo mais loolu fan la tegee tey jii li may wax chaque jour gis nga sa peuple soo bëggee am benn mainmise ci yow si moom danga koy xiifal nga maral ko nga rafleeloo ko soo ko ko defee rek am lépp loo bëgg ci moom mhm. loolu moo indi xam nga maa ngi koy wax léegi ay Sénégal amatuñu kersa ñaan mhm. amatuñu ker sa wax seen soxla mhm. te autant nga dajeex nit mu ne la may ma wala dooma lebal wala doo ma dimbali ci nii wallahi azim dafa jafe woon. léegi moom ku mu neex na parier génn sa kër ba duggaat sa kër te doo dayal ku leen ni mayam amatul. amatul mhm. amatul te nit ñi autant dañu amoon kersa googu. Mhm. Pa tey jii kër yi añ dong lañ ci togg. te dafa am dafa am benn commentaire bu may wër dafa dama ko lire lii mu échappé ma. Hmm. waa ji nee na ne pouvant pas régler les problèmes des Sénégalais il promet de construire benn morgue mais xam nga lay waxal. <laughs> <laughs> tey jii xam nga ñuy wax waxu jën. nee na nee na dina tabax morgue Massalikul Jinaan. problème mu jën ñu ngi koy wax. tey jii ñu ngi mi ngi inauguré euh, ngi pose première pierre usine de dessalement bu Mamel. bu Mamel. te les environnementalistes li ñu wax moom moo di ne dafa am répercussion yu mais évidemment évidemment euh, ci li nga xamante ne moo di alam gi. Mhm. loolu yëpp tey jii. mu fas yéene doole te pourtant ñun lii waruñu bett ndax waxoon nañu ni dina métti te dina gën a très belle analyse de Awa Diop Ndiaye loolu lañ ma envoyé léegi message. <laughs> du la faral di daal de te da ngaa tandu. <laughs> ci laa dëkk nag tandu bi. Moussa ci ci ci ci policiers yi ak seen indemnité ak seen régime bi ñu bëgg. Euh, laa bëggoon ñu taxaw si tuuti parce que comme ñoom ndeysaan du ñu am ku leen waxal waaye ku manifester ñu dóor la yat. Mm. ñoom nee nañu tey jii bu leen président consulter woon en agent yi ne ci terrain bu ñu leen consulter woon li ñu leen di defal